vide juridique boobu ñu profiter. la privé article 173 dernier la wax la wax de la candidature de l'individu irrecevable mais lu rendre liste bi irrecevable dafay rendre candidature bi rek lay yàq mais du yàq liste bi ñu ni su fekkee ne da nga bokk ci ñaari département bokk Dakar bokkul gis da effectivement candidature bi baaxul mais sax du yàq liste fii nag benn liste la te ma insisté ci benn liste parce que seen parité boobu ñu bañ a respecté seen liste boobu moo warul recevoir parce que respecté wuñ ci parité Et ma fàttali de la liste est une et indivisible la liste nag su fekkee ni dafa am ñaari euh, côté euh, euh, su titulaire ak suppléant nit ki nekk ci titulaire nekk ci suppléant kenn mënul wax ni liste boobu dañ koy rejeté candidature bi mu inéligibilité la ñu mën a wax par rapport à la candidature mais kenn du wax problème mu liste ñu nekk di ko wax di ko waxaat lu nekk def nañu ko depuis le début bi ñu amee partenariat ak wàllu dafa daal liste wàllu daal dee ni seen parrainage matul au même moment muy wax naan la liste de wàllu matul ci même moment bi ñoom la seen liste parrainage ëpp taxul mu mu jël ko en compte parce que ñoom seen liste yëpp lañu waroon a rejeter parce que seen parrainage dafa ëpp ñun ñu daal di dajaloo en solidarité def tout ak suñu dom ba mu remplacer defar liste yépp ba walu déposer ñu décider biñu len jappé ci problème parité ngeen dégg sen mandataire accuser 15 15 listes départementales ni 15 listes départementales yi dañu paritaireul té ñun ba depuis le début bo ngeen gissé jigen ñangi doora tok parité bi luñu ñor la bañu waxé la liste de Dakar ñun seetuñu sax vide juridique bi vide juridique bi ñi ko war a seet seet nañ ko ba Dakar déposé mais ñun ba ñu nee amul parité rek ñun ca lañ ca noppi déggu leen benn jigéen jéem ko défendre parce que ñun parité boobu la ñuy wàllee ji donc du ñu nangu ku ko torpiller ñu defar liste Dakar d'autant plus que liste Dakar boobu en passant ba ñu nee dañ koy rejeté ca bañ koy rejeté liste ba yépp lañ rejeté kenn jépp ko jéem ko amputé kenn jéem ko divisé ñu ñëwati foofu. ñu ñëwati daal di accuser quinze listes départementales da nga leen a déggati ñu waxati ko ba pare lii seen faute mooy dañu cité des des ay dëkk dëkk yoo xam ni bu mel Bambey non seulement la liste est paritaire mais jigéen sax moo jiite liste bi donc pour wax leen rek ni leen à chaque fois ñu ngi ñuy wutal des torts pour jéem a atteindre la liste de Yewwi Askan Wi loolu nag jigéen ñi mënuñu ko seetaan parce que jigéen nanguwul injustice l'injustice est inélégante jigéen nangoul kuy kuy kuy kuy gënale loolu moo tax ñu jóg non seulement jóg mais pour alerter jigéen ñu jóg tam tay pour appeler à manifester le 17 ndax le 17 du manifestation des politiques rek le 17 dañuy dénoncer la détérioration du cadre de vie le 17 nous dañuy dañuy dénoncer la dégradation des conditions de vie des populations sénégalaises le 17 dañuy dénoncer la qualité de l'éducation le 17 dañuy dénoncer la qualité du service public notamment dans les services de santé le 17 dañuy dañuy dénoncer la réduction du pouvoir d'achat du Sénégalais aujourd'hui mais aussi le 17 dañuy alerter dañuy alerter du le 17 pour wax du politique yi rek la intéressé parce que injustice dal na ci kaw politique yi waaye bu ñu dañuy fatali ni injustice bo gis amna lu koy faj te li koy faj dañuy ragal mu nek violence té ñun violence arrangé wuñu ñun jigéen ni kuy def violence arrangé wuñu kon ñun dañu bëgg ngeen ko ko ko artuul nak dina atté té tay ji bu kenn japp ni tu n'es pas concerné tout le monde est concerné tout le monde est concerné

ñoo fi teew parti yi nga xamné ño ñoo fi teew euh, déjà avant may may sori la présidente Elentine ku nek xamna ci euh, son esprit de justice et d'équité ku meuna xex injustice la xamnañ ci dara bokk nañ ay cadre yu ñu injustice amna cadre yoo daf koy intégrer lui avant ñukoy def ñun mom fekk na bëggoon na def déclaration boo xam avec d'autres femmes comme ñun nous ñu ci bëri ci ñun donc lii moom euh, opportunité la pour que effectivement mu élever la voix ci loolu donc euh, la présidente des femmes de passef euh, madame le maire Mme Dièye mu ngi la présidente des femmes de Taxawu Sénégal madame Aïssatou Fall mu ngi fi la présidente des femmes de de de mom ku ci nek ak ñi nga àndal leen rek leen euh, madame maymuna Bousso euh, am ngeen habitude diko gis elle est femme leader membre de la conférence des leaders euh, madame Olimata Guiro députée du PUR madame Koumba Keita ànd ak Aminata Linguère Ndiaye ñom ñaar grand parti Ami Collé Niang accueillir

Khady euh, elle est conseillère Golf Sud euh, Ndeye elle est conseillère à la SICAP ñoom itam donc defe naa vous naa leen jigéen ñi fi nekk ndax am na ku madame Silla Khady PEM moom ak madame Tal euh, ñoom itam PEM la ñu Ndak Thiam ana Ndak <laughs> Ndak ça va bien voilà da nga da nga xaw ndaak euh, ndaak Thiam donc euh, ñooñu ñoo fi nekk tey donc bu ma leen nee les femmes leaders ñu ngi fii ngeen xam ne les leaders ñu ngi fii te euh, di woo femmes yëpp di woo acteurs yëpp di woo secteurs yëpp pour la manifestation du 17 ba nga xam ni comme ni ñu ko defee woon rek manifestation pacifique la mais dañu bëgg mu nekk tam mur de lamentation pour que Sénégalais yi exprimer le ras-le-bol le ras-le-bol de ce de ce régime qui a atteint ses limites régime boo xam ne mënatu la dem te ñàkk mën a dem gi nit ñi ñoo ko sentir donc loolu la ñu bëgg a waxtaane ak yéen tey euh, damay jox la parole à notre amie Elentine. Tine moom itam mu sànni ci carton sant yalla bu baax mën a ñëw fii ci euh, seen makkaan présidente pour la première fois fekkee ci seen ndaje jigéen ñi nga xam ne suñu naataango yi ñu fi fekk di euh, nuyu suñu naataango yi yëpp jigéen ñi fi teew ñëpp femme leader yëpp ñu leen di nuyu di leen sargal di nuyu aussi presse bi xam naa ñu bëri dinañ ne lan lañ fiy wut parce que dégguñu yeew yi bien que dégg nañ ñu ñu ànd ak wàllu ci élection locale yi nekk euh, Thiès, euh, tête de liste euh, Thiès Ville. Euh, mais comme c'était pour les locales aussi compagnonnage beaucoup ci local il la a donc nous dañ fi ñëw ci suñu jubbu bopp ma ànd fi ak Awa Gueye suñu ben responsable ak Aïssatou Sané sama doom ñëw fekk si présidente Aïda Mbodj ak leader de femmes de l'opposition yi parce que nous, ñun dañoo yàgg faire injustice fii ci Sénégal

moy recul démocratique bi nga xamné ne buñ ko sétané mën naa ne nërmel na démocratie sénégalaise parce que nous ñun ñu ngi féké ay élections législatives ak ay élections locales depuis bu yàgg wayé li xew d'abord li xew depuis 2012 ci boddi ay leaders ak boddi ay listes de yalla fi ci Sénégal foog naa ne bu revisiter histoire politique du Sénégal pour bëri luñu ko gis may njëkk a dénoncer le fait que depuis 2012 ay leader politique boo xam ne war nga mën a am taxawaay ci langue gi wut nañu ay pexe ba faagaagal la tere la bokk ci jeu politique bi walla génne la réew mi walla ne doo bokk loolu mooy góom bi gën a rëy tey bi menacer démocratie sénégalaise sous le régime de Macky loolu nag jóge na ci faagaagal ay leader mu ne léegi sax naa faagaagal ay kuréel ak ay list loolu moo feeñ ci élection yi ñu jub nii parce que lii xew nii c'est trop gros boo waxee dinañ la ne conseil constitutionnel moo ko xaatim kon nag ñëpp nañ ca tënku waaye ñii nga xam ne ñoo koy wax depuis ba mu xewee ñooña ñoo doon di ngat conseil constitutionnel te bañ koy dingat nag ñun dañ ko fekkee bañ koy dingat dañu àndoon ak ñoom ñuy wax ne conseil bi dafa am laago dafa am dafa am taxawaayam des na kon tey ñooñu bu ñu fàttee loolu 2019 rek yàggul ba ñu paree élection présidentielle xam ngeen ne dañu ne sax duñu defe defi recours parce que bu ñu defee recours jaru ko ndax fañ koy yóbbu duñu ko doxe duñu ko mëte duñu ko jëfe kon ku wax loolu ba pare boo toogee tey nag yeewu ne conseil ba la mu xaatim na ca nit ña tënku ñépp te xam nga ne teguwul ci li nga xam ne mën nañ koo yenu yenuwul maanaa kon nag nit ñi duñu ko nangu man li ma indi fii tey nag mooy mën naa ne nekkuma ci liste kenn du ne damay wut a falu moo ma fi tax a teew parce que nee nañ ku wax rek ñu ne da ngay wut a falu parce que dañoo faagaagal sa liste de da nga nekk ci liste ba dama nekkul ci benn liste mais dama nekk une citoyenne sénégalaise nekk une femme politique qui se qui se bat depuis longtemps pour que démocratie sénégalaise ñu dooleel ko kon bu faagaagal jotee képp ku sétane ñuy faagaagal démocratie sénégalaise bu ëllëgee so yuuxoo na nga xamné ci ñiko sétane nga bokk motax ñun ñu ñëw fi tay pour wax Macky Sall ne ko lii kenn mënu ko nang parce que mënu ñu jël di instrumentaliser disposition code électoral numu leen nexé en défaveur de l'opposition nak ñom seen bop bu ñu waxantee dëgg rek présidente wax na ko sànq seen list moo waroon njëkk a daan ndax ba ñu nee parenage ba ëpp na ñoom ñu avoué ko wax ko ba àddina bi yëpp dégg ko ca la ñu waroon daaneel seen parenage ministre de l'intérieur moo waroon na njëkk daaneel seeni list ne leen du ngeen bokk waaye lan lañ ci gis dañu leen jàllale boddi ay liste yu bëri moo tax maa ngi woo démocrate sénégalais yëpp démocrate sénégalais yëpp goor ak jigen mag ak ndaw ñu jog taxaw xamne tay tey buñu bu ñu faagaagalee kii bu ci kenen lañu jëm motax ñun suñu taxaway fi tay ñuy woté ñuy woté dañu bëgg ajuma nañu autoriser rassemblement bi tax nak duñu suspendre constitution bi am joxé droit de manifester suspendre ko mu nekk au-dessus de toutes les autres lois parce que nenañ code électoral bi wax na le droit de manifester présente, c'est inscrit dans la Constitution. Et la Constitution est au-dessus de toutes les lois qui sont charte kon ku manifester parce que da nga am lois xam bëgg nga ko ñaxtu si dundinu askan wi ak si faagaagal démocratie la démocratie war jox may la droit nga manifester si jam, donc ñu ngi le jàmm ñun woote waxtaan parce que amuñu intérêt. Sénégal di dugg ci guta te foog naa ne ñi koy wut dugal ci guta mooy ñi nga xam ne ñu ngi toog chaque jour di lijjantee nu ñuy def ba néewal doole maanaam képp koo xam ne teg nga tànk ci langue politique bi te xëj na di nga yàq seeni plan ñoom pour que ñu continuer di rester au pouvoir parce que nag pouvoir su demee ba tey yow seetatoo sax saagakat yi ak waxkatu yu bon yi mm-hmm. yow tu ramasses le menu fretin de partout parce que li lembe réew mi depuis ñaari fan ngeen ko président ci bopam mi don dingat ak di wax waxkatu yu bon yi moom moo jëli di lang ak di wax ak di jëf ak ñom te mom mo ne ñoña nañu kon talut sénégalais nañ bi na est-ce que am nañu engrais engrais amul est-ce que am nañu soudure mu ngi ñew soudure sax c'est toute l'année maintenant parce que la vie est dure wulo loolu ngay langi ak ay kat di wër adina bi di lambar lambareek ay saagakat waxatuñu loolu nga ni tey kenn du bok ku nara bok dana tassaliste sa kon ak loolu mënuñ ko nanguma moma fi indi ma dénoncé ko et je lance un appel à tous les démocrates de ce pays ak fu ñu mënti bok nañu jog taxaw ndax ku ne tay sama liste laaluñu ko liste bela lañu laal bu suba dinañu laal lu raw sa liste te su bo yu xoy kenn du la wuy mal leen di gërëm di leen sant di jégalu bu baax a baax loolu rek moo ma fi euh, ah, may mu na kon xaaral man ma jaaree ne bàyyil ma jàll ñu na tontu président toogal ko aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di tàmbali ci nuyo bi suñu sœur yi nga xam ni ñoo ànd ak ñun tey def point de presse bi di nuyu

muy réew mo xamné ne dañ naan sax ndax yalla ngi fi ndax nit ñi faté nañu sax yalla mi len sàkk am fitu di def sañ-sañ yo xamné dañu naan ndax ñi gëm nañ ne yalla amna ndax faté nañu yoonu siraat mu nekk nak situation bu tendue situation bu doy war bo xamné sénégalais yépp la concerné sénégalais yépp lay waxal donc il est temps il est l'heure

mu situation c'est intenable que faut que nit ñi di def ñuy def muy Macky Sall Nous que réaliser wuñu situation bi dafa Nous sénégalais nous pour nous pour bañ a est prôné yi la société Nous a muy nit ku dul wax muy nit nous sa intérêt kese nous. mais lu mel ni ñu euh, ministre

intérêt sénégalais yi njëriñu sénégalais yi su ma Sénégal nag population moo tax nekkatul intérêt am moom waaye nag ñun ñoo ko mën a fajal le 8 juin bii ku mu doyul dara du la doy le 8 juin bi passé li mu gis waroon nako yé waye mom au lieu mu conscient parce que mënul déglu du déglu askanam au lieu mu conscient ci message bi ko waron jallalé bi ko doon jallalé mom mu ñuy wan faalewu ma leen daal di indi koo xam ne ñëpp xam nañu li mu ko daan def di wane ni gis ngeen maak moom moom valeur yi muy prôné dafa bokkut ak valeur yi nga xam ne aada ak cosaanu senegaal loolu la ñuy dundee jot na nag ñu soppi réew mi Ablaye Wade moo ne woon soppi sunu président Ablaye Wade jigéen ñëpp ameel ko njukkal ndax parité bi mu ñu jox kenn mënu ko koo fay ndax modèle la tey ji ci Afrique fu ma dem dañuy wax seen réew yéen démocratie moo fa am ndax parité bi ñoom ñu bëgg ko te amuñu ko Macky Sall la ñëw bëgg ci dëggate ay tànkam di toroxal parité Ablaye Wade woo moomu moo ne woon soppi waaye président Ousmane Sonko teg si ne jot na man ma ni kon soppi na soppi jot na ñu wallu ndax coalition yee ko matal yeewi askan bi loolu nag bu ko Macky Sall comprendrewul dinañ ko ko wan le 17 ne ko soppi jot na ñu wallu te yeewi askan bi te bu soobee yàlla na mu meloon la 8 nu ko raw lay mel ndax xam ngeen ni bu jigéen ñi ayee ah dara du set dina jaar yoon dina mat sëkk ñu ciy woon na képp kuy jigéen ci Sénégal képp ko xamni bala ngay jox sa njabot mu lekk dangay sonn képp koo xam ni say dom jànguñu ni ñu war a jàngee képp koo say dom jang nañu ba yor seeni lijaasa tok ci biir kër gi di la wéttali boo leen joxul ndékki duñu dem képp ko xamni bala ngay am ndox dang koy roti ji képp ko xamni bo boo da ngay sonn pour nga faju wala sa njabot faju cet appel est lancé à toutes les femmes vulnérables qui souffrent dans ce pays ñu ngi leen di woo nag 15 heures

ndax jàmm rek pas ñu bu kon buñu joyé nañ ñoo place de la nation la c'est la nation sénégalaise qui est interpellée le droit de manifester honorable Hélène Tine wax na ko ci ndax bi et on te félicite pour ton courage tout à fait di wax rek ni bis bobu lañ ci bëgg le 8 juin

ndax nit boo ko bàyyiwul mu wax leneen lu mu def yaa ko ko teg demuñu kër bàyyu kenn place de la nation la ñu dem nañ ñu bàyyi kon ñu manifester ni ñu ko bëggee ñu ngi woo ñëpp nag waaye Macky ma delluwaat wax la ko watawat asalaamaaleykum di nuyu ci turu jigéen ñëpp la présidente Aïda Mbodj bu ma ko nuyoo nuyu naa ñëpp moom ak euh, la présidente Hélène mais comme ni nga ko waxee rek di remercier la presse di leen remercier di kontaan ci teewaay bi tey nag foog naa ni li ñu fi indi ñu ñuy jiitu wax nañ ko mooy que suñu gaal suñu gaal gi tudd Sénégal heure bu nekkee en danger da ngeen ni seetlu ne les femmes dañuy jóg Et bi yoon dañu jóg pour une fois de plus nous gal gogo bala muy chavirer nous téye ko comme nous ko daan parce que aujourd'hui li nga xamné c'est un am problème de démocratie problème d'injustice mais surtout problème yi nga xamné un problème de société ci problème de démocratie et de liberté yeen xam ngeen lan la ñima jitu wax nañ ko mais liñuy Mais wax ñi nga xamné ño nek en face de nous, dañ avec détermination avec beaucoup d'engagement pour leur dire que élection mënul am ci réew mi une suñu liste nationale de toute bi nga xam Ousmane Sonko moi ko jiite duñ ko bàyyi mu avec sa photo loolu bu fekkee ne n'y nañ pas nañu bail lolu mu parce que forfaiture bi nga xam ne gis nañ ko avec ñi nga xam garantir la constitution def nañ ko dama ne fait ñoo def

daa di que tënk ba dootuñu bokk ñun jigen ñi jóg nañ et bu ñu ensemble dama né loolu mënatul am ci réew mi parce que nous sommes des femmes déterminées nous sommes de vraies amazones dama bëgg Macky Sall am ñi nga xam ne ñoo devant ñu ñu xam ko y a une autre chose bo xamné dañ koy wax moy par rapport au grand rassemblement bi nga xamné ñun mom lañuy préparer moy aljuma bi le 17 gis nga rassemblement bobu dañuy wax préfet ne ko xëy na moom garantir constitution bi fii ci département Dakar même bu fekkee ne le gouverneur il a mal interprété les textes parce que dafa melni xamul ne bu wax propagande ab interdiction mais c'est par rapport aux médias mais tay ñun bu ñu ci bëggé bolé moy dafa bëgg a réew mi mota dañuy wax préfet yow am nga une grande responsabilité pour nga baña a réew mi indi fi lo xamné mësu fé am na interdire marche bi ñuy wo nak suñu moromu jigéen ñi ne n'est c'est pas seulement la démocratie et les libertés ñom ñoo en jeu mais suñu dundine mo nek en jeu ndax metti na wax nañ ko mais am lu gëna metti ñu ngi naan mais yi ndax dem suñu parce que bu ñuy c'est pas seulement pour nous mais c'est pour l'avenir de nos enfants parce que bëgg nañ suñuy am fu ñu dëkk takk ay jabar nekk ci jàmm loolu tamit beneen xeex la te ci xeex boobu lañ koy boole àjjuma incha allah donc kuy ñëw muy jigéen na nga ànd ab say doom ànd ak say njaboot ñu ñëw ci jàmm mais jàmm ji nag à condition que ñi bëgg ko en tout cas de fii ku fi gis ne ku fi gis ñun ñu toog dañu déterminé dañu déterminer en face de ces la là parce que dama ne loi bu amatul ci réew nous sommes devoir pour nous faire et nous allons résister toutes les femmes ensemble te dinañ résister wan dinañ résister préfet comme ni ma ko waxee boo bëggee tire, ci réew mi une autorisation parce que c'est un droit constitutionnel di wax aux forces de l'ordre et de défense seeni yaay seeni sœur ñoo nara nek devant et ils auront une grande responsabilité devant l'histoire de ce pays ce vendredi là avec sans autorisation entre guillemets nous serons devant bu ci yàlla àndee ne du pas guddal du ma wax du ma waxati lu bari mais daal wax les femmes nous serons là-bas Inshallah, à partir de 14 heures demande demander toutes les femmes fu nous mënti nous ñu pour défendre ce pays là pour que suñu gaal gi ñu tirons ko ndax buñ ko téyelul bu suuxee ñun ñi ñuy soox te boobu aussi waxoon nañ la huit bi passé modern démarrage campagne waxuma ne campagne législative mais campagne pour dire marqué à suñu réew bi tamit dañ koy confirmer pour qu'il dégage 2024 ndax nak sonn nañu sonn nañ sonn nañ doyal nañ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 kenn duñu dégg te seen liggéey rafet na ba tabaarkaal la euh, di nuyu tamit suñu kilifa yi fi fekk mooy soxna Aïda Mbodj Hélène Tine ñoom Maymuna ak ñi mel ni ñoom ndax euh, ku ñemee rek dañ laa tungoom dañ leen fekk ñuy xeex ay ati ati at ñu ñëw jàngal ñu ñu tàmbali commencé ñeme ñu woo ñu tey nag ci mbir moo xam ne dafay lëmb réew mi Olof Njaay dafa wax lu yëngu Liko ko yëngal moo ëpp doore kon li yëngu ku nekk xam na ko tey thème d'actualité bi liri yi juddu sax xam nañ ko ndax dañuy bëgg a jommi man nak ki ñi bëgg jommal moy la justice té dama yaakaar né tiaxan baxul ñun ay député lañu man mi di wax ak yeen ci commission des lois la bok fañu fañu jëlé fañuy jëlee loi ya foofu laa bokk ca taabal jooju laay waxee mu mel ni nag téere yor code électoral bi ay milliards et milliards lañ ci def pour génne pour jox ko askan wi ñu ci gëstu di ci référé wu di ci orienté nit ñi kon ci milliards yooyu xejoon ci xale yi xejoon ci jigéen ñi on a parlé tout de suite de la pauvreté il y a une extrême pauvreté et les femmes sont les premières victimes de la pauvreté

mais la gravité de l'heure Al Maktoum ne saurait empêcher la conviction des leaders convaincus aujourd'hui les leaders sénégalais sont convaincus li ñuy rek le droit de dire oui ou non quand il le faut et nous leaders femmes nous disons non et c'est non non et c'est non Ce Macky Sall wetam di nous nekk ci pas donc ne ñun nawuñu leen ñi naw mooy ñi nga ne jigéenu Sénégal dañ leen ñor jigéen yi nga ne dañu oddu seen ci terrain bi di xool jigéen yu di utal ay financement di leen ko jox di leen jox ay formation di jël ça suffit président Macky Sall nag dañ ko lancer un message dama yakarne ne dañu nekk di ko nax waaye ngëm yàlla na ko delloosi bi mu fiy ko won ndax ku nek dafa ne c'était prématuré ñu ne bii dina falo yalla fal ko kon na baye mbir mi ci loxo yalla. bu mu So soo lu Yalla tëralul man nga caa am rëccu te nak yaakaar

mais duñ question de seconde nous allons changer Nous dafa un problème ci liste. dañ am problème comme nous ko fait cette liste n'est pas paritaire ba parrainage nous la valider liste ne valider nangu élection par A ou B Nous lançons un appel président de la république mën nañ ne suñu càmmiñ la mën nañ ne suñu mag la mën nañ ne amul ku koy conseil amul jigéen ñu koy conseillé donc ñu ngi koy lancé un appel qui recule moo xam ne nu muy reculer mu bañ a bàyyi ba mu tàng ni mars defoon mu reculer avant qu'il ne soit trop tard suñuy doom ñoo fay dem suñuy rakk ñoo fay dem suñuy jëkkër ñoo fay dem moom ci boppam ay rakkam a ngi ci ay sëram a ngi ci donc buñ ko dugal ci guuta conseil constitutionnel li ñuy def teguñu ko ci dëgg

président la ñun dañ juumoon la wax mom juum néna liste bu parité dem élection ko na jappalé du dem élection su démé élection dañuy dem élection suñu démul élection du dem élection c'est clair et précis ñu ngi déglu suñu kilifa luñu wax loolu lañu def gis ñun buñuy gënë génn dem dañuy tàgg suñuy dom ne leen suñu déwé dénk nañ leen diw sol suñuy dal dem wuyu ji ñun amul luñu ñuy daw su amé ñu ñëmé ñun ñëmé nañu ñun ki ñu àndal gaynde la mën na gaynde la mën na ruux gaynde suñu yónnee ne dama ruuxi gaynde ñu ruux gaynde parce que xam nañ bu ñu demee ruuxi gaynde du ñu mat kon su ko defee na dellu ginnaaw balaa réew mi leneen di ci am ndax réew mi ñun ñëpp ko bokk te jàmm rek lañ ci bëgg bëgguñu ci ay na ñu may suñu droit de manifester ñu dem manifester ci loolu mooy dëgg ñu wax li ñu wax waaw yow soo waxul soo manifester wul wax li la métti nan la ñuy déggee li la métti nan lañ koy déggee suñ la mayul nga manifester nu ñuy déggee li la metti donc maa tay bi dafa doy waaw maa tay lañ fi nekk di def ak dama am doole yàlla rek a am doole ku dul yàlla amoo doole asalaamualeykum wa rahmatullah ay demal fa Ami Collé waaw. demal demal kii Ami Collé. asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp. madame Mbacké Ami Collé euh, la présidente des femmes du PRP. Mhm. de maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu tata Aïda di ko jox nuyoo bi rek mu séddale ko jigéen yëpp di toog fii wax ji sax du bëri dañ ciy sànni tuuti rek président Macky Sall moom wax ji moom moo ko moom dañu am président bu soxor président bu ñàkk yërmande. président boo xamante ne xamul lan mooy àq jigéen te 2012 mu xam ne jigéen moo ko fi teg man li may wax xam naa ne sax sama yaay ngeen baal ma mais ak xol bu jeex lay waxee ndax dama nekk ci terrain bi nekk adjointe au maire Parcelles Assainies gis jigéen ñi nu ñu sonnee santé bi baaxul milliards yi ñuy tudd chaque jour dinaan def nañ ko ci sante fan lañ ko dugal nañu bàyyi xaalis yi ñuy sàcc di ko dugal ci seen i kër delloo askan bi li nga xamante ne li ñu moom bërki Dembo Ndiaye moo ngi dem France ñuy foo di caaxaan surtout yéen journalistes yi nga xamante ne yéen ñu dëkk seen seen seen euh, caméra yi respecté wuñu leen journaliste Sénégal respecté wuñu leen Macky Sall joxu leen cër bu amee lu muy wax day daw ba génn Sénégal wax ko fa te bu ñëwee ngeen koy dëkkaat yéen da ngeen ko war a boycotté bàyyi ko bu ñëwee bu lu muy wax bu mu leen ko wax bu leen ko tas ci Sénégal ñu di ko dégg ndax dañoo yor gouvernement boo xam ne dañoo baadoo la kenn xamul lii lan la ci Sénégal kenn xamul ñun ban dëkk la ñu nekk nii nit ñi sonn nañu askan bi tàyyi nañu man nag li may wax lu gàtt rek la mooy la 17 fu jigéen mën a nekk na génn fu jigéen xale mag ndaw nañu takku ba dëgër ñi mun sol blouson nañu mun sol blouson ñi mun sol basket nañ ko sol ñi mun a takk seeni sër nañ ko takk le 17 bu leen kenn jiitu yéen jigéenu Sénégal yéen laay waxal ndax yéen a sonn yéenay dem ci marché yi dépense yi dem nañ ba dara doyatul suñu góor yi sonn nañu man nag li may wax lenn rek la mooy Macky Sall askan bi doyal nañ ci yow suur nañ la këll te yow war nga xam ne war nañ la ginnaaw sa wàcc jot na liggéeyuñ leen dara bërki démboo Njaay sa jabar mu ngi tiim ay enveloppe yu ñu ko jox nee na enveloppe yi daf ko dépassé foofu la waroon xam ne jëkkëram liggéeyu ñun nag sonn nañu tàyyi nañu li may wax fii laa koy yebale maa ngi jéggalu ñëpp. grand parti de Malick Gakou asalaamaaleykum euh, suñu mbokk yi suñu xarit journaliste yi ñoo ngi leen di nuyu di nuyu suñu moroomu jigéen suñu yaay yi fi toog yépp euh, ñun dañuy lancer rek benn appel ndax yaakaar naa bu ñu doonee jigéen si doon ndaw bu gis suñu yaay ay dëmbooj bépp manifestation bi nga xam dafa soxlal askan bi mu nekk ci kanam yaakaar naa bu suñu kër di wala ñu war nañoo am lu ñu xoolaat suñu bopp war nañu am ay questions yu ñu posé wu donc dañuy lancer message bépp jigéenu Sénégal tey situation bi Sénégal di dund yaakaar naa kenn gënu ko yëg jigéen ñi parce que le panier de la ménagère moom moo gën a éprouvé wu si jamono yi ñu toll génnal jaar ci boutique bi ngay dugg tey ceeb yokku na dëwlin yokku na suukar yokku na saabu yokku na café bi nit di naan sax dafa yokk tey boo génnee maire biy jaay gerte caaf ci mbedd mi sax daf la naan yokku na loolu lan moo ko waral dund gu metti tey malheureusement ñu am benn président ba nga xam ni il a préféré génn ànd ak un insulteur public di taxawaalu ci dëkk bi plutôt que muy euh, pensé wu ci problème yi nga xam ne moom la situation bi di dund tey boo xoolee nguuram te di ngeen ko gis ci semaine bii di ñëw ñoom ñëpp takk nañ seen ay bagages takk nañ seen ay jaag daw nañ dem France dañuy fecc ji dañuy wayu pendant ce temps là Sénégal tey jigéen ñaa ngi souffrir tey benn yaay du nelaw bu sa doom génnee bu 20 heures jotee li sa doom wàccul boo tëddee doo nelaw numéro boo xam di nga ko woote pour xam fu mu nekk lan moo ko waral insécurité mu sax ci boppam boo ko téyee di ko pousse ba mu sa simir bu yàggee dalay song te yaakaar naa ñu tey foofu lañ toll ak le président Macky Sall dafa topp sénégalais yi di leen pousse di leen pousse di leen pousse di leen xiifal di leen maral di leen xooyantal xooyantal goo xam ne tey jii suñu continuer banque suñuy loxo ah ëllëg nag euh, jooy day wees parce que bi nga waree wax bi nga waree xeex bi nga waree jooy boo ko bàyyee ba mu paase boo gesoo koo fay fekk doo fa fekk kenn Macky sàll masul def lu bett Sénégalais yi lépp lu mu ñu teg coono bu ñu mas a teg am na ay prémices ci kanam dina junj ñuy toog di seetaan ku ci nekk naan man laalu ma laal na Karim Wade kenn ni man laalu ma mu dem si xalifa sàll Khalifa Sall ni man ñeneen ñi ni laaluñu mu dem jëm ci wàllu jëm ci yeew yeewi bu subaa ci yi ñeneen ña toog sax di seetaan ni ñoom seen yoon nekk si bu paree si ñun si ñooñu la jëm s'il y a une seule liste qui est paritaire au Sénégal c'est bien la liste de Benno Bokk si donc su une une liste on ne peut pas élection législative yi ñu donc il faut que nous leer ci je parle ni par la force su ñàkk bokk dee am moom moo élection du Sénégal Nous lançons un message pour le 17 incha ne jigéen pas que nous fa kenn jiitu fulla fayda le si jigéen la ko ñëpp xamee tey ñëpp fep fu ñuy woté jamm ñun kenn duñu fa jitu mais tamit fep fu ñuy xéx xeex ay ndeer le 7 mars sama yaay ay demo jëngi ni tok ay jigéen nako jité won té te kenn fàttewu ko té jigéen ñu seen ay dom seen ay sët ñom ñoo fi ba tay Sénégal amul benn jigéen buy daw bu jamm jotee dinañ woté jamm ñom buñu bëggé jamm dinañ continuer ak ñom ci jamm buñu bëggé bëggee leneen nag wax dëgg yalla fa lañ ñuy fekk donc message lañuy lancer pour que jigen ñep nañu génn bu boba njaboot la jamm lañuy woté xéxuñu xulowuñu xuloowuñu nak su féké bëgg nañ jamm gis nañu message bu ñu leen lancé ci le 8 bi passé su fekkente nag xëy na lañ leen waxoon le 8 mo leen tital wala ñu xalaat la leen dalon ci élection locale yi passé ñu nelaw yeewu fekk na Sénégal ñak nañ département yépp ñak nañ commune yépp su dé lool mo leen tital ba wu ñoo dem élection même avec les derniers de nos suppléants dañ leen di dóor dóor yu metti donc nañu xam inshallah élection bi bu amee kenn kuy ñàkk bokk ñoom lay doon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. très bien Aminata félicitations Khady madame bu PM parti Habib Sy yéen waa maa ngi nuyu suñu mbokk journaliste yi fi teew yépp di leen gërëm ci teewaay bi di nuyu tamit sama sœur yi ma bokk ak euh, toogaay bi fii jotaay bi ah man li may wax rek mooy man dama nekk adjointe à la ville de Dakar am lu ma fa gis mooy tabaski jii di jege si nit ñi sonn nañ sonn boo xamante ne boo gisee demande yi da ngay waaru commune Hann Bel-Air géem dëkk même chose nit ñi dañuy rang def ay demande suba ba ngoon yow président de la république nga gis loolu jéemoo xool noo réglé problème mu yi waaye taxaw suba ma ngoon dafa gëdd naan man def naa lii def naa laa mais li nga def kenn gisu ko ndax askan bi li mu bëgg mooy lekk naan faju te loolu tey mooy problème mu Sénégal waaye yow soo yeewoo suba ba ngoon lenn rek mooy sa yitte nu may euh, yàqee liste yeewi askan wi nu may fexe ba nga xamante ne leader yeewi askan wi ñu bokk lenn na ko tiital mooy liste titulaire ba nga xam ne Ousmane Sonko ko jiite ak ñu mel ne sama grande Aïda Mbodj ñooñu la ragal ñemewu leen moo tax ñemewu la jànkaarloog ñoom yow bu fekkee da nga ne liggéey nga man def naa lii def naa laa seen nit di ko bàkkoo seen jigéen ñi fu ñu toog di wax ay wax kasaw-kasaw ne kenn mënu koo dégg bu fekkente ne loolu la da ngay ñeme bëre waaye yow tey mu mel ne rek nga ne damay dem coupe du monde ñu ne tey waa liste titulaire ba nga xam ne fa la Sadio Mané nekk dañ koy teg de côté daan na dañ jël suppléant nga xam ne kenn xamu leen ñooñu laa ñeme ñooñu laa jàmbaarloo loolu di ngeen ko nangu xam nga du ngeen ko nangu donc titulaire bi nga xamante ne ñoom Sadio Mané ñoo fa nekk kàngaam yaa fa nekk boobu la bañ a jàkkaarloog ndax moom ñemewul loolu ñun ñëpp xam nañ ko te loolu ñun tey duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndax fii dañ ne démocratie démocratie bi nga xamante ne na dëkk yëpp dañ ñu ko soppee nawee ñu ko dëkk Afrique boo dem ñu naan Sénégal loolu du fi dañ duñ nangu nag tey président Macky Sall di ko yàq ñu ñu toog di seetaan ndax buñ ko seetaanee tey ëllëg suñu doom den ñooñu waaye yéen président Macky Sall ba muy def lii fu ngeen nekkoon xanaa da ngeen toog leen na yàcc ne sax mel ne yaafuus duñ ko nangu ñun duñu yaafuusu kenn li ñuy wax tey mooy na ñëpp ànd ak ñun ci combat bi ñu ngi woo ñëpp nag ci jàmm ak salaam ni ko sama sœur yi waxee ba pare mooy dañoo bëgg le 17 ñëpp génn ñëw taxaw ñu wane ne démocratie am na si dëkk bi ñu wane ñu li ñuy jooy pour suñuy doom suñu njaboot tax ñu koy jooy dañu bëgg suñu liste jàll ñëpp bokk en 2017 su ma juumul 47 liste moo amoon fii cinq quinze ñoo déposé lu ko tere woon mu bàyyi quinze yi peut être bu dee ñeme nga nga jàkkaarloo quinze yi ku mën sa borom duma loolu la ñu wax waaye yow tabax sa arène ba mu rafet nga ne waar arène bi rafet na maa ko tabax waaye damay tànd ku may bëre kon da ngaa ragal li may ragal nag lañ bëgg a xam lan la na woon sénégalais yi ne ñeme na jàkkaarloog ñun xeex ñu dóor ko am cohabitation dem assemblée loi yii muy teg nga xam ne kenn àndu ci ñu mën na ko déet du fi am cohabitation bu amé moy tax Sénégal mën jëm kanam ndax amna yu bari yuñ ñu fiy def yo xamante ne baaxul baaxul guddi baaxul bëccëg té ñing koy nangu parce que amuñu choix parce que voté nañ ko parce que il a une assemblée bo xamante ne c'est une majorité mécanique même ñi nek opposition ñi fa nek buñu ñu waxee kenn du len déglu ñom ñu voté seeni loi muy jàll lolu moy dak ñun lolu lañuy ñuy bëgg ngeen jàppale ci xeex bi ñi ngi leen ñaan yéen ñëpp vendredi ngeen ñëw taxaw jàppale ci combat bi di leen gërëm di leen sant wasalaam je remercie toutes les femmes présentes, mais laissez-moi aussi remercier tous les partis, membres de la conférence des leaders, qui se sont déployés effectivement et particulièrement le président Dekefal, qui, est, qui venu très tôt et a mis tout en œuvre pour euh, que la, ce point de presse se passe dans de très bonnes conditions. Je pense que la cause est entendue. Nous allons mobiliser le 17. Nous allons nous faire entendre le 17. Les femmes vont jouer leur partition. Les femmes vont effectivement faire entendre leur voix. Leur voix pour dire au président Macky Sall qu'en matière électorale, tout vide juridique profite aux compétiteurs pour dire au président Maxal que son conseil constitutionnel, j'ai bien dit son conseil constitutionnel, a posé un acte que personne ne comprend, qu'on peut considérer comme une opportunité politique et non le respect du droit. Le droit n'a pas été dit. Et je l'ai dit la dernière fois, lors de mon discours le 8 juin dernier, que le dernier recours, ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Le dernier recours, c'est la population. La population va se faire entendre, dedans ou dehors, dans la rue, euh, si ce n'est pas autorisé, ou bien en ordre organisé. Donc, nous lançons une fois de plus un dernier appel pour demander aux autorités compétentes d'autoriser cette manifestation. Je pense que Yewi Askanui et ses amis ont déjà fait preuve de discipline et d'organisation. Donc, aucun problème ne saurait intervenir si effectivement nous respectons les droits et des autres, des droits consacrés par la Constitution. Aujourd'hui, c'est Berno Yakar qui partira selon les désirs du chef aux élections aujourd'hui Yewwi Askanoui est martyrisé aujourd'hui on fait tout pour écarter Yewwi Askan nous allons nous battre mais nous tenons à exprimer notre point de vue devant l'opinion pour dire à l'opinion que personne n'a le droit d'écarter Yewwi Askan les juristes ont fait prévaloir le vide juridique pour relever le caractère inclusif du processus électoral. Ne serait-ce que pour ce caractère inclusif, on devait faire prévaloir ce vide juridique pour laisser à Yewi sa liste intacte. D'autant plus que la liste est unique et indivisible. Il y a une seule liste. On le dit et on le redit. Cette liste amputée de Ben Yakar on ne pourrait pas la considérer. Et je pense que celle qui doit diriger cette liste doit la refuser. Parce que ça va entrer dans l'histoire sans gloire. On a beau chanter la promotion des femmes, on a beau chanter la tête de liste euh, euh, euh, qui pourrait être historique, mais on ne saurait chanter cette liste de Bernard amputée qui va entrer dans l'histoire sans gloire ni honneur.

ajjuma Macky Sall dina jot ñetti tàccu jigéen ñu ni ko jigéen ñi xiif nañ seen njaboot xiif nañ dinañ ko ni jigéen ñi fajuwuñu seen njaboot fajuwul dinañ ko ni jigéen ñi seen njaboot jàngul dinañ ko ni sunu mbokk baykat ya ñu bàyyi ca tool ya amuñu engrais amuñu engrais te problème yii yëpp li ko daal mooy président bu tële président bu tële mooy jël lu dul priorité def ko priorité ndax ñun assemblée lañ nekk xam nañ ni ñuy voté xamul luy priorité dañ ko dama ni jigéen ñi bu ngeen dóoree Macky Sall seen ñetti tàcc yi prononcé leen seen départ pour le départ de Macky Sall ñetti tàcc jigéen ñi ñetti tàcc jigéen ñi je vous